abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV dal leen ak jàmmu mbokki internet yi di leen di ñaan naka ngeen like vidéo bi te ngeen abonné ci chaîne bi like leen like vidéo yi bu baax a baax dina ci am solo bile yoon nag comme niñ koy baaxoo di ko faral di defee dañoo dikkaat ci ab jàngat ci ki nga xam ne rekk moom mooy Juan Branco mi nga xam ne mën nañu xeexu njaago lay def nekkat du jeexal bile yoon dafa dem yi directement ci ki nga xam ne moom mooy Marème fay sàll ki nga xam ne moom mooy première dame wax ca nag kàddu yu nga xam ne rek mën nañ ne nopp bu ko dégg rek dalooti di mbir mu nga xam ne kenn foogu ko woon fii ci diwaanu Sénégal moom mi gannaaw bi mu daal dee posté moom Juan Branco kënekat kii nga xam ne mooy Marème fay Sall dafa yor ay vidéo yu nga xam ne rek mën nañ ne vidéo yu doy waar la comme ni nga xam ne noonu la ko kii di Adamo di defee saa sune ne looleekat nekk kàddu yu nga xam ne rek moom muy di Juan daal dina koy jot a xamle muy kàddu yu doy yu nga xam ne rek mën nañ ne mën na yee fitna fii ci diwaanu Sénégal ndaxte kat réew la mu nga xam ne rek rëyul te jàmm ji léeg-léeg dañ naan réewum teraanga wantekat des na lool bu fekkente ne nag ay analyse ci wàllu politique mu dellu siwaat si moom mii di Juan Branco kënekat Macky Sall dafa nekk ku nga xam ne rek bu fitna juddoo fii ci diwaanu Sénégal mën nañ ne loxoom génn si du samay kàddu gannaaw nag fitna ji nga xam ne rek daal di nañ ko koy teg moom mii nga xam ne moom mooy Juan Branco gannaaw nag bi fa fas dikk fii ci réew mii di Sénégal daal pour nag assister ki nga xam ne moom mooy kiliyaanam bii di président Ousmane Sonko ci li nga xam ne rek mi ngi ko doon amal te muy ab jano bu dox ci digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Mame Mbaye te mën nañoo dellusiwaat sax ci fee yi gannaaw ñaari weeri kaso ak 200000 yu nga xam ne rek daf ko koy jox moom mii di Ousmane Sonko jébbal ko ki nga xam ne rek moom mooy Mame Mbaye Niang kat mën nañ moom moo naqari kii di Juan Branco ba tey moo tax nag mu topp ci gannaaw ki nga xam ne moom mooy président Macky Macky Sall di ko yàq lu mel ne xamee boobu ba tey di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen wéy di abonné